ko ci présence am di nuyu docteur Pape Amadou Ndiaye di parrain wu bés bi maa ngay nuyu di la dalal di nuyu ñi fi teew ñëpp bu ma limee dinaa juum di nuyu groupement de femmes yi fi teew yëpp jóge ci trois communes yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier aussi ci seen présence di sant aussi waa Grand Thiès ma nekk ndaxte tey jii mën naa ne su ma demee ba am tey ji doole wala fit pour taxaw di dugg ci politik wala may def yu mel nii ñoom ñoo ma ci jàppale ñooma ma puus ba tey ma egsi fii maa ngi leen di gërëm di leen sant loolu jàllee may gërëm sama mbokk jigéen yi ndax ku ne xam na ne jigéen ñi ku fi falu ku ne ñoo la fal te dañoo sonn nag ma gis ne jigéen ñi ñu ngi ci groupement de femmes yi ñu ngi ci nettoyage yi ñu ngi ci lépp ma soo sama dàll dem seeti leen groupement 30 groupement la ma sélectionné ci 15 ndax tey ji ma naroon a dajale fii 30 suba sax duñ fi jog ma dem seeti leen ñii ma jàppale leen ci ay financement ñii ci ay formation ñii ne ma ñun dañu soxla ay matériel de nettoyage moom mooy bagage yi ngeen di gis nii tey jii ma fas yéene leen koo jébbale ku ne gis na effort bi président de la république di def pour dëkk bi set gis nañu UCG Thiès tilimatul benn yoon mais dafa am ruq yu sew yi nga xamante ne oto yi mënuñu faa dugg jigéen ñu jàmbaare yii ñoo fay nekk di ko nettoyer ba dëkk bi set wecc kon ñooñu yaakaar naa ne lépp loo leen jàppale pour ñu setal dëkk bi rek président nga ko defal ndax bëggul fenn tilim may remercier docteur Pape Amadou Ndiaye ndax vraiment taxaw na ci bés bii jàppale na ma tey jii bu ma mënee taxawal bés bii da cee jàpp looloo tax ma koy remercier bu baax a baax a baax a baax mention spéciale ndax lépp lu ñu taxawal fii ci Thiès kaay loxoom mi ngi ci seetaanul kenn mi ngi jàppale surtout jigéen ñi mi ngi leen di jàppale maa ngi koy sant di ko gërëm di ko seeréer Thierno Alassane Sall mi toog tey jii maa ngi ko koy seeréer docteur Ndiaye mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax ñun jigéen ñi ñu bëgg nga àgge ci président de la république xamal ko ne kii jàmbaar la mi ngi taxaw fépp fu mu ñu war a taxawoo muy jàmbaar ju baax a baax a baax bu loolu jàllee jigéen ñi maa ngi leen di dolli di leen ñaax nii ngeen amee pas-pas ak taxawaay leen rek moo ci des ngeen accompagner ñu. ci élection législative ci élection législative yii di ñëw en 2017 ñu gagné ko ak une large majorité pour mën a dëgmal élection 2019 yii di ñëw pour mën a falaat le président de la république ndax doy ngeen ma ci ndax yéen a génnoon jël seen ay carte fal ko ba tey ji mu toog fii te boobu ba léegi jéppi woo leen ko lépp lu mu war a doxal mi ngi koy doxal taxawuñu nag ñu jigéen ñi defal ñu fi ay bourse familiale indi indi fi couverture maladie universelle di jàppale suñu njaboot ndax ku ne xam na ne jigéen bu doomam feebaree rek daraam dootul dox taxawu ci lépp xale bu fi juddu zéro ba juróomi at doo fay dara boo feebaree lépp président de la république taxawuñu ci te lépp defal ñu ko ngir jigéen ñi ñu ne deetawaay ba mu fi toogee ba léegi kenn xiifatul gis ngeen ceeb ceeb beeg dawlin suukar ak lépp la wàññi kon yaakaar naa ne kooku askan bi kenn jéppiwu ko ñu dem ci àll bi kenn xiifatul kenn maratul mbay maa ngi fi jox leen ay machine ñuy bay di leen financer pour ñu def autosuffisance alimentaire yaakaar naa ni kon kooku bëgg na Sénégal jëm kanam forage yaa ngi ci àll bi mu def ay teen kenn maratul suñu mbokk sàmm yi di jox seen jur yi ñuy naan di def seen tool yi kon yaakaar naa ne kooku mérité nañu jox ko deuxième mandat ndax xam na li taxoon askan bi teg ko fi te mi ngi ci tànk yooyu ma leen ñaan ngeen dem jëli ji seen carte yi te kenn bañ leen a nax ndax kii def lii nii ta te ci doole ju néew la ko defee dara newul woon ci réew mi bañ ko ko jox gisoon nañu lépp mu ànd ak ministre am yu jàmbaare yii di liggéey ba kenn jéppiwu ko barki Dembo Ndiaye lañ ko gis muy inauguré Dakar di inauguré rek pont baa ngi noonu pont de l' émergence dem fi Kër masaar dem fi fu ne kon yaakaar naa ne kooku buñ ko dooleelee mu am deuxième mandat lépp lu ñu namoon fii ci réew mi dinañ ko am bu soobee yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. rahmatullah yéen waa Grand Thiès ñi ngi leen di nuyu tey am nañu kontaante bu rëy rëy rëy ndax ñëw nañu tey waa Grand Thiès yëpp génn. tey dañu fekk muy taw tey mu am ay événement yu bari waaye ñëpp bàyyi li ñu doon def ñëw toog fii loolu am na lu muy jëriñ loolu am na loo xam ne am na signification tey jii dañoo ñëw fekk fii suñu rakk suñu frère ni ma ko yàgg di wax mooy koo xamante ne Thiès yëpp moo ñuy téye suñu place ci ministère muy monsieur Thierno Alassane Sall. ñu ñëw leen fekk leen fi nga xam ne fa lañ dëkk fii mooy Grand fii nga xamante ne muy Maimouna Sène muy wàdd mu muy Thierno Alassane sàll fii lañu màggee fii la ñu teraanga dellu si waat ne dañuy jàppale waa Grand ma ne nit ki nag soo xamul num noo koy def nam la def a tax ñëpp seen yëpp seen yitte yëpp bàyyi nañ ko ndax Maimouna seen daf ñoo wan teraanga wan leen ji ji leen ko moo tax tey jii ñëpp ñoo toog taxaw fii mu am leen loo xamante ne lu am importance la lii muy def nii maanaam jàppale ay moroomu jigéenam tey nag du ne guleet ba financement yi jotee mënoon naa jël financement yi téye ko boppam tukkee ci delloo si kon tey jii kenn du ci wax dara na ay moroom a ngi koy def mais dafa jël financement yi delloowaat leen ko ngeen di ciy góorgóorlu di ci liggéey muy seen njariñ ëllëg looloo tax mu am bés bu mel nii tey ma leen wax nag dara moom yéen a moom may seen Maymuna la waaye ñu ngi leen koy denkaat nit nag day am xel kuy raam di la boot bés mu yoree 4-4 sa xel jeex dal tey lii mu def ku ko gis rek xam ne kii dafa takk biiram def lu bari lii du lu ndaw mënoon na ko jënd ay or mënoon na ko jënd ay bañse ak jesneer mu jal ko jàlloo ko ci ay moroomam jigéenam kon yéen yi nga xam ne yéen a fi dëkk war leen nga wane gor te ngor li mooy lan fii ñu jëm muy 2017 gii am na élection damaa bëgg fii Grand Thiès ngeen am fi ndam loo xamante ne ñépp ñëpp dañ koy wax muy ndam lu rëy ndax ci jar na ko moo leen ko wan moo leen ko defal loolu moo tax ma ne leen jàpp leen li ngeen di nekk cuq nag moo gën këmm lii mu leen defal rëy na waaye yéeneem lii asaka la ci yéene bi mu am ci yéen bës bi nga xamee ne ay ndombo tànk yi mu war a am am na ko incha allah bés boobu waa doom ci Grand Thiès yëpp dinañ xam ne seen doom am na ko. ma ne leen donc nañu góorgóorlu te jàpp wax nañu président la république yéene yi mu am ci Thiès président de la république yéene muy am ci Sénégal ak jéego yu mu ciy def loolu leerat na ñëpp mu wax na ko wax ñu leer. monsieur le ministre léegi dina jël parole dina ko wax ci wax ju gën a leer ndax moom moo fa nekk ndax nee nañu bopp bopp picc suy metti su ko jën xamee dafa fekk baraka ko wax ndax moo dem ci kaw wàcc ci suuf ci biir ndox bi comme moo dem moo ñëw moom la ñuy xaar mu wax ñu loolu laa leen di wax kon yéen waa Grand Thiès damaa bëgg ngeen yokk seen pas-pas jeunes yi fi nekk ngeen yokk seen pas-pas liggéey pour que 2017 ñoo am fi victoire boo xam ne du am benn lam-laamee maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. mbokki Grand Thiès mbokki Thiès ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di féliciter suñu xarit suñu sœur a seen mi nga xam ne moom waral gannaaw yàlla ñu daje fii tey di xam ne même bu doon une heure matin lay jeex dinañ fi toog gunge ko bu doon deux heures la jëm dinañ fi toog gunge ko naa dikkaat léegi ci lu waral ma wax kàddu yooyu di nuyu suñu frère suñu grand frère le docteur Pape Amadou njaay Diop wax na ko woykat yi way nañ ko Maymuna seede na ko Thiès yëpp xam na lu muy liggéey ci cees ci mbaax ci dimbale njabootu Thiès ci dimbale jigéenu cees donc ñoo ngi koy nuyu di ko sant di nuyu mboolem responsable bi fi nekk ku lim juum waaye xàmme naa fi ay mbokk ay dëkkandoo ay responsable ci biir APR di ay kilifa ci biir Thiès di ay nit ñu baax ñoo xam ne ñoo doon ànd démb bala tey donc nuyu naa ku ne ci turam ak santam encore fois responsable bu fi toog responsable politique bu fi toog gis nañ la mun Maïmouna gis na la docteur gis na la man gis naa la ñoo ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di wax ni jotaay ji rek même bu amul woon leneen kontaan nañ ci ndax famille wu APR Thiès moo fi daje di wax tuuti loo xam ne du yàgg du ga du gudd mais mënoon naa ko guddal aussi te lenn du ci lu may sos di wax tuuti ci may mun Maïmouna mii maa ngi ko xam ci ba ñu nekkee opposition fu ñu wootee may mën a bokk ci ñi fa njëkk bokk nag ci bokkin goo xam ne da ciy bokk à cent pour cent mooy lépp lu mu laaj ci doole ci xel ci taxawu ci tàkkuwaay mu def ko te kenn mësu ko dégg mu kaas ci dara maanaam ba APR faloo ba léegi kenn mësul dégg may Maimouna di kaas ci dara te mu nekk koo xam ne lu ne liggéey na ko ci parti bi lu nekk daj na ko loolu moo tax ma ne tout à bu doon une heure du matin lañ jëm dinaa fi xaar même même bu doon fajar lañ jëm maa ngi fàttaliku suñu mitin premier tour bi ba fi Macky Sall di waaj a ñëw organisation west bi zone west bi moom mii lañ ko dénkoon bu ma juumulee mu taxaw ci taxawaay bu jéggi dayoo meeting boobu ñëpp a ngi koy fàttaliku meeting premier tour bi waa Thiès Ouest mobilisé mobilisation bu rafet mais mun naa wax lu ci bëri du lu parti bi joxe du lu responsable joxe lu mu lijjanti la kaar yu manqué diggante t-shirt yu manqué kaar yu manqué yooyu mu ñëw regle ko donc bu defee lii tey mun na jaaxal ñeneen waaye man Thierno Sall du ma jaaxal du ma bett. te bokk na ci ñu néew ñoo xam ne bu wootee waa per yëpp dinañ ko wuy te témoigné loo xam ne dara du ci sos beneen bi mooy li waral ñu dajee fi am na ñu ko wax ci ñi ma jiitu mu noon na lu mu boole wala lu mu ci jot ne man jotuguma ci jënd kër wala 4-4 wala leneen waaye daf ko delloo ci askan wi boole ko def ko ay bale ak ay tame ak yeneen ak yeneen yoo xam ne newu fi ci tabaski ak yeneen yu muy def donc woo na leen ci loo xam ne nag ku ci woo doomu aadama mais fekkoon leen ci aussi mais woo leen ci ñaax leen ci loolu mooy wane différence politique bu ñuy bu ñuy def ñun ak bi fi woon bi fi woon dañ lay solloo t boo xam ne may mun a moo lañ ci bind pour fësal boppam moom wala mu dajale ay quelques communicateurs ñu fësal turam mu woote benn meeting may làmb mu jeex waaye daf leen woo ci loo xam ne moom mooy jëriñu askan bi parce que ku la woo ci set te set ci la lépp nekk set ci la wér-gu-yaram nekk set ci la setuwaay dëkkuwaay bu sell nekk set boo ko amulee amuloo sax diine bu mot donc ci loolu la leen fekk si woo leen ci di ci encouragé donc may mun a gàcce ngaalaama bi ci des mooy li ma wax léegi rek ma ñun APR jóguñu pour mit politique gu naxaateeg caaxaan ak foo mu jeex ba ñu dugg see ci Thiès booy dóor sa affaire yooyu dañ lay déglu donc dégluñu ba ñu ñëwee Thiès. dañu fexe ba lépp lu ñu fi fekkoon ay action yu positive maanaam jëf yoo xam ne jëf yu rafet la nit ñi nekk ci ñu leen di ciy gën a ñaax mooy lii mu def nii mooy cours de vacance yi muy organiser yi mooy association jeunes yuy jàppale yi moo tax jeunes yi léegi-léegi dañu insister pour ñoom ñu jox leen kàddu ñu def seen témoignage dem nga ay meeting yu bëri ak ay rassemblement yu bëri da ngay woo ay jeunes di leen neexal pour ñu wax ci yow waaye jeunes yii fi newoon tey témoigner xam nañu ñoom ñoo sentiral seen bopp lu ñu bëggoon wax wax ko docteur Ndiaye nag woo na ci li may neex ci li ma sawar ndax benn benn dëkk bi ba ñuy ñëw 2011 dañu fekk ci situation boo xam ne courant bi dafa raaroon lool coupure yi bëri lool. ba nga xam ne Dakar toog nañ fi ñetti fan yoo xam ne émeute la woon ñu ne ko ñu tuddee ko émeute de l'électricité am na wala amul tailleur tailleur yi di jaaxle ñu mel ni Ndiaga Wade di marche ba nga xam ne dañu leen daan tëj jaaykat yëpp kuy jaay marchandise périssable jaaxle menuisier métallier ak yooyu ñenn rek ñoo kontaanoon te mer tey mooy ñu doon jaay groupe électrogène ak sondel ñooñu moom def naa ne alternance bi alterner dañu ñoom it seen i métier dañu dugg ci yeneen métier waaye jaayituñu yooyu donc côté boobu mën naa ci junj juqi as lëf rek wax gis nga ba ñuy ñëw ba Abdoulaye Wade di ñëw ci nguur gi boobu dañu privatiser woon Sénélec dañu privatiser woon Sénélec ndax Sénégal entièrement deux cent cinquante mégawatts moo fi ne woon ci électricité deux cent cinquante mégawatts la fi Abdou Diouf bàyyi privatiser nag Senelec mu të baax parce que tubaab yu jëndoon Senelec dañu ne dañu leen nax niñ leen niñ leen jaayee woon mbir mi dañu xawoon taaral jànq ji rek kii ko mais jànq ji daal gis du niñ ko foogee woon ñu daal di delloo Senelec état bi parce que ñoom ci seen wàllu bopp dañu banque seeni loxo bañ investir yéen ni ngi fàttaliku ba leen bàcc lii bu doon ministre de l'énergie à l'époque joxe woon sommation ñu jëlee leen fi delloo leen nag 43 milliards yi ñu defoon ci Sénélec yu ñu jëndee woon Sénélec de 2000 250 mégas à 2012 250 mégas dong lañ ci yokk c'est-à-dire que en 2012 y avait 500 mégas ci Sénégal tey jii nii bu 2017 bu 2016 bi jo jeexee incha allah. diggante janvier 2016 ba décembre 2016 dinañ dugal ñun 250 mégas maanaam lu lu tolloog li fi Abdoulaye Wade yokk diggante 2000 ak 2012 250 mégas dinañ ko dugal de janvier à décembre 2016 ndax ba Ndiaye gis ngeen en mars dernier président de la République inauguré fa 70 mégas te 70 mégas yooyu dinañ ci yokk 30 muy 92 mégas 72 la woon gis ngeen mois de mai bi ci weer koor gi mu inauguré centrale Cap des Biches 50 mégas 50 yooyu dinañ ci yokk 33 dinañu yokk aussi dinaa dem fan yi incha allah alxames pour visiter centrale solaire bu njëkk bu ñuy am 20 mégas bokkul dinañ ci yokk yeneen centrale ba nga xam ne entre décembre. ak entre janvier 2016 décembre 2016 dinañ yokk 250 mégas waaye yemuñu foofu 2017 incha allah dina am yeneen 250 mégas yu ci tëgg parce que 30 135 yi ñu dem muy centrale de Sendou am na yeneen marché yu nekk en cours signé nañ ko bala 2017 bi di jeex incha allah 250 mégas muy 2016 dina 2017. dinañ jébbal Sénégal 500 mégas muy yem ak li ñu fi fekkoon en 2012. bala loolu réparé nañ fi yeneen centrale yu yàqoon defar nañ fi yeneen fil yu xawoon a jagadi moo tax tey jii nii xuy xamaj bi wàññeeku bu baax ci ci tënk encore. bu fekkee ni dañu soxla 400 mégas wala 500 mégas tey jii nii ci waxtu bii ma lay wax nii. 500 méga bu ñu la ñu soxla am na yeneen 100 yoo xam ne dañ ko denc comme secours bu centrale benn paane ñu dugal ko bu soxlaa ñu maintenance ñu defar donc loolu sellal bi ñuy wax ak setal bi ñuy wax comme ni ko may mën a di wane mu ngi ci yooyu village yu ñu électrifié yi ba Macky Sall di ñëw mille neuf cent et quelques de deux mille maanaam lu yu yées ñaari junni village ñoo amoon courant ci Sénégal ba Sénégal nekkee Sénégal ba 2012 lu tolloog ñaari junni moo daf ko yées diggante 2012 ba tey jii may wax ak yéen lu ëpp 1200 villages électrifié nañ ko maanaam plus de 70 pour cent lañ fi fekk en 4 en 4 ans plus de 1000 près de 1200 villages électrifié nañ leen te incha allah programme boobu jeexagul di ngeen ci gis yeneen ak yeneen yuy ñëw. Thiès gii dinañu yeesal une partie di réseau électrique parce que xam nañu réseau électrique bi lu ci bëri dafa màggat déggoo ngeen ay jamono waa fayu di joytu di ñaxtu waaye am na lu ñu fa xaw a jotelaal ak ay Medina Fall ak yooyu mais lu gën a taxaw loolu gën a takku loolu dina ñëw lu Thiès rek Kayar Diourbel Tivaouane Touba yeneen dëkk dinañ ci dugg réseau bi ñu moderniser ko transport bi ñu moderniser ko keroog dama dem ci benn ville village am na ay seede ay journalistes ñu ngi fii fekkee ay seede lañu chef de village bi ne ñoom depuis cinquante ans dañu daan wut ay audience dugg fu ne pour ñu defal leen électrification waaye ba seen village bañ koy électrifier demuñu fenn dañu xëy rek ñu fekk si leen nee leen yéen da ngeen di dañu leen di électrifier bokk ngeen ci ñu ñu nar a électrifier électricité bi ñëw ñu taal làmp mu fekkee mu ne juróom-ñaari machine yoo xam ne pour jigéen ñi la oyofal seen liggéey ci wàllu machine yuy wol wàllu machine yuy eh, def yeneen ñu ngi fa mu ne bu ñu paree ci tànt bu mel nii lañ toogoon mu ne ma boo demee dinañu def distribution boobu ba may dem effectivement mu ngi ne jigéen ñi toog leen ñu jox leen seeni machine mu ne téeméeri bourse de sécurité familiale dugal nañ ko ci dëkk bi dëkk bi boobu dukkumaan la tudd mu ne ma couverture maladi universelle mu ngi fi maa ngi wax mu may dégg chef de village bi amaana parce que li may wax yëpp ci rajo la amaana mu dégg ko waaye am na ay journalistes yi fi nekk xàmme naa leen ñu ngi fa woon keroog donc ku la indil bourse de sécurité familiale ci sa village indi la électricité def fa tali tuubaatul boobu di dem Tiwaawan indi ay machine indi la couverture maladi waa xam naa kooku soxlawul muy campagne électorale bu campagne bu élection jotee xanaa kay foofu fexe ba ñeneen yëg loolu ak milliards yi ñuy wax yi fan la jaar foofu la dugg duggul feneen donc may mun a lu taxoon démb ñu jóg ñun gëm ni ko war nañu wax ak waa Thiès gëm ni ko lañ leen woo ci leneen wa tey mun nañu daago ci biir Grand Thiès au moins parce que am na luñ ci def mun naa wax ci tali yi parce que fii ñu taxaw def naa ne ci la bokk mun naa wax ci tali yi parce que fii Grand Thiès am na fukk ma xaw a sànni xeer fële en même temps di ma kii fii Grand Thiès am na lu ngeen ci gis waaye waa Parcelles am na lu luñ ci gis waa Jaxaaw am nañ lañ ci gis waa Cité Malick Sy mais loolu as lëf lu tuuti la ci lu ñu def ci beneen senegaal mun nañu wax. ci piste de production yi président def feneen mun nañu wax ci se forage yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir senegal mun nañu wax ci case de santé yi fi may daanale mooy fi ma tàmbale woon ne ci affaire sellal ak santé benn la ba ñu demee conseil des de décentralisé Tamba benn femme moo témoigné ba président di lancer premier centre hémodialyse bu mu def jigéen ji ne man dama amoon feebar war a dem di def dialyse Dakar rek laa ko mënoon defee parce que boobu Dakar rek nga mën a dem am dialyse ñu defal la dialyse ba ñu ubbee centre bi mu ne man ça fait six mois dama dénkaane woon samay doom ñetti doom seen jàng nar a yàqu ndax man mënutuma woon dund ci Tamba te mënuma leen yóbbaale Dakar moom moo njëkk a def soins yi foofu def témoignage sama kanam ku ne alalu Sénégal duggul ci askanu Sénégal ci yërëm. askan wi delloo leen lu ñu moom fexe ba ñu gis seen bopp ci nguur gi kooku war nañu indil ay firnde loolu tax coow yi ñuy dégg ci rajo yi man dama ne bëri bugguma ci sowuma ci trop ndax am na loo xam ne buñ ko waxee képp ku am dégg-dégg dina xam lu nekk ak lu mënta nekk dina am lu am ak lu mun lu mun lu amut parce que da ngay dégg ñu toog ne contrat pétrolier yi contrat gazier yi dañ ci luubal Sénégal jot na ay milliards yi milliards dama leen koy tënkal ci baat bu gàtt naa ci ñëwaat bu ma demee ndar incha allah ci kanamu étudiants yi nga xam ne ñoom vraiment euh, ñu crier lañu mën a laajte maa ngi leen dinañu préparer seen question dinaa ci tontu incha allah waaye dama ne pétrole bi dafa mel ni nga ne rek. sama toolu maam a ngi nii wala sama dëkku maam a ngi nii wala Sénégal a ngi nii am na ko foo xam ne suul nañ fa samay maam suuloon nañ fa euh, ngalam mais xamuñu fan la nit ki mun na wër ku wër di nga gis séeréer yi ñoom avant dañ daan jël ngalam gi suuraale ko seen kii comme <laughs> ceddo lañu <laughs> ku wër rek doo moytul di gas di romb Sénégal di gas boo moytul daa dajeeg ngalam waaye ak nga nar a yàgg di wër mun nga nekk ay téeméeri at di wër loolu mooy pétrole bi pétrole bi kenn mënu la ne fii am na pétrole de manière sûre mënu nekk moo tax depuis deux mille depuis Sénégal nekk Sénégal depuis dix neuf cent ñoo ngi wër ci tubaab yi ba léegi ñoo ngi wër pétrole ci Sénégal mais comme xamuñu fu mu nekk amaana am na amaana amul te ki koy wër alal bu bari la ciy def. kooku est-ce que yenu na maanaa nga ne daf lay fay pour ñu wër jeex lu yenu maanaa kay nga ne ko jox naa la nga wër boo gisee ñu séddoo boo gisul nga dem sa yoon waaye man comme d'accord nga pour wër duma ci def sama dërëm foofu la ñu toll ak compagnie pétrolière yi ci gàttal maanaam xel nanguwul que ñoom dinañu joxe ay milliards pour wër pétrole boo xam ne óor na leen seeni moroom jiitu nañ leen fi wër gis ñu dara dem ñeneen jiitu leen fi wër dellu dem ba fu ñu trouvé pétrole bi am na ñu fa woon delloo permis bi dem seen yoon loolu est-ce que xel nangu na bala ngay gis nga nga joxe ay milliards xel mënu ko nangu xanaa kay yow da ngay ne saawaay wëral dénk naa la ko am na nag ay frais yu ndaw yu ngay fay frais yooyu du dara loué nañ la surface bi yaa ngi fay par année 3000 xaw ma ñaata par kilomètre carré di nga fay bonus di nga jënd ci Petrosen ay données loolu la. loolu du alal bu bëri loo tax sax Petrosen ba tey c'est pas une société très florissante waaye bis boo trouvé nag ci charte yii ak yii ak yii lañuy ñuy nar a séddoo affaire bi gannaaw yow ba nga defee gannaaw yow mi nga trouvé yow yaay gas wi yow yaay tabax wi yaay def machine yuy manque ak pétrole bi yow yaay def machine yu koy segg ak yooyu yëpp après nag ñu doog a séddoo loolu xanaa loolu moo gën a dal xel gën a yenu maanaa que koo xam ne day ñëw jeex xamul lu lu muy wër dina ko trouver ñu naan joxe na fa ay milliards jafe na lii luubal na fii yooyu ay waxi kese la waaye naa ci dellu si yu gën a yaatu parce que bu fekkee nit nit ñi dañuy woo ci xuloo kese yow nga yor caq nit ñi taxaw kii fi mu toll nii gars yi bu ñu ñëwoon avant en avant moom dañ koy rawale dem parce que soxlawul ñuy muy xeex am na waxtu xeex ak waxtu wax expliquer ñun tey waaw waaw <laughs> voilà mais fi mu toll ñii ñun ci liggéey la ñu toll comme béykat yu nekk ci kii bi noonu la président mel noonu la gouvernement bi mel ci liggéey la ñu nekk. loo tax dañ daan wax vacances gouvernementales gaa yi dem France Senghor moom version ngeen ko daan dégg Normandie un mois ferme dina ko jël du ko sax kafe yeneen gars yi tamit dañ daan jël seen avion dem vacances bu ñu ñëwaatee gars yi teeru leen aéroport ñu fi jiitu woon du ma tudd seen tur waaye ñun vacances ci nawet dañuy ñëw ci koñ yi suñu koñ yi wàccaat dajeek askan wi waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom nemmeeku leen loolu moo ñu fi indi woon tey di leen gërëm di gërëm encore une fois képp responsable bu fi ne di leen sant di ne vive le docteur Ndiaye vive na le pare pare bi def na vraiment lu rafet euh, Maïmouna e vive tous les responsables de Grand Thiès du ma ci tudd kenn nag mais gis naa leen ñoom ñëpp ñu ngi nii à côté di leen gërëm di leen sant wasalaam.